Eh, di sëriñ Abdul Xaadir Bousso mu sëriñ Abdul Aziz sëriñ Abdul Xaadir Bousso mu sëriñ Ibrahim sëriñ As Bousso sëriñ Abdul Aziz sëriñ sërif ak bokk yi fi teew yëpp. di nuyu tamit sëriñ Ahmadou Bousso mu sëriñ Bàcc mu sëriñ Modou Xarit mi nga xam ne moo tax ñu teew fi ngir seere si jëf yu am solo ji nga xam ne daf koy ànd ak. ONC bi wala association bi nga xam ne moom la wax mariyaama nekk fële ci Amérique di jëf-jëf ju ama am solo joo xam ne eh, ñëw na ci waxtoom muy jumtuwaay yi nga xam ne gis ngeen ko ci ay fànn yëpp moo xam diw suukar eh, meew chocolat eh, bër ceeb ak lépp loo xam ne boroom kër daf koy soxla tàndarma ñu dajale ko ngir fas ko yéene jox ñi nga xam ne ay néew doole lañ loolu di lu am am solo maanaa solidarité waaye infaq fi sabilillah nga xam ne euh, nit mën naa jaamu yàlla jaamu yàlla yu bari waaye dimbale nit ñi ak ma mënuñoo gis jaamu yàlla gu ko ëpp doole surtout ki nga xam ne yaa ndax sëriñ bi da cee digee lu am am solo ci boo ko dee xool ndax xidma mooy nga bàyyi xel sa moroomu jullit dana ko mu gën laa yitteel ci sa bopp mu gën laa yitteel ci say mbir te Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne dabe ndab maanaa soo bëggee dab guur yàlla yi fexeel ba di leen jox ñuy ñuy lekk Cheikh Amadul Fadal daana wax ne dee leen jaamu yàlla ci jaami yàlla yi dee leen jaamu yàlla ci jaami yàlla yi dëkk bii di tuubaa nag xam ngeen ne dëkkub sëriñ bi la nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo bind benn plan muy Matlabul Fawzayni ñaan boroomam niñ fiy nekke ñaan boroomam tamit ñi fiy nekk nu ñuy mel kon dafay mel ne dugalaale na ci ku fiy nekk jaamu yàlla moo tax mu sanc ko waaye nag nga amal njariñ jullit yi nga xam ne dañoo nekk ci la ko gënal moo tax mu ne wa man fahan li kulli haadin muslimi wa madd fahan xan kulli haadin mujrimi dëkk bi na doon njariñ ci képp koo xam ne da ngay gindee ak def lu baax waaye na doon ab dàkkuwaay ci képp koo xam ne mujrim nga kàccoor nga wa jannatan li dalikin muridi wa junnatan xan haatikin maridi na doon ajjana ci ki nga xam ne dafay jubal waaye na doon ab pakk ci képp koo xam ne am marit nga loolu kon dafay dafay duggaale ci yëpp soo dee xool tamit bayit yu baree bëri yoo xam ne sëriñ bi digg na ko ci xidma te mooy jëf ji nga xam ne ñi ngi koy def fii muy di dimbale nit ñi di leen jariñ di leen dimbale ci seeni ñam di leen dimbale ci yëpp soo xoolee sëriñ bi naan inna alladina shaarahu li xidmati fa lahumu diyaaru wastal jannati maanaam na nga wutal ay kër suñu borom lay ñaan ne ko na ma na ma na nga na may ay kër ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy xitma dañ may liggéeyal ca digg àjjana wax di xawaaiji lazina daamu fii xidmati wa hablahum maraamu maanaam ma sëriñ tuubaa tënkal nañu ko ci xekk ma boo fa demee ci loo xam ne néewaana mu koy waxee wax naa la ko léegi nee naa la xidma dimbale nit ñi jox leen ñuy lekk dimbale leen ci ay bagages yëkkati leen ay doj maanaam foo toll yaa ngi ci yittey nit ñi loolu tiyaaba ju ko gën a kawe gisuma ko sëriñ bi ci boppam moo wax ci ikma ne kiy jaamu yàlla te di ko boole ma ëllëg mën naa doon koo xam ne dafay dafay ràmme maanaam dafay doon koo xam ne waxuma la am àjjana waaye day doon koo xam ne dafay bokk ci ñii tino su fekkee nee na nee na tamit su fekkee da nga fonk jaamu yàlla te fonk xitma danañ la isaab ci àddina waaye du la tey dem àjjana kon xidma am na doole bi ko mujjeel mu ne képp koo xam ne nag foo koo jaamu yàlla xidma woo kooku moom maandu naa ci yow xaw ci yow dara loolu wér la loo xam ne wax wax na ko ci ek bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko moo ko dajale woon kon yooyu yëpp soo ko dajalee dafay doon njariñul baatin loo xam ne ëllëg lañ ciy jariñ nit ki bu dee fii nag ci àddina xam nga ne nit ku amal njariñ nit ñi nit ku ne ka ko amal njariñ du ko yemale ko amalul njariñ te loolu bu dee nag dundu saayiri nag ci wàllu solidarité bi nii rek maanaam nit ñi dañoo soxla ndimbal ndax jamono moo ko laaj jamono metti na lënd na lëndëm na dëkk bu mel ne Touba nag ci ñi nekk bitim réew di seetaan wala yu demee noonu dëkk bu ko ëpp ay néew doole amul dëkk bu ko ëpp ay néew doole amut maanaam man ñun mën nañ cee joxe exemple rek mën nañ ci joxe exemple ci kuréel bi nga xam ne nekk naa fa euh, sagam taxut a jóg damay bañ a cité waaye danañuy dajale lu mat ñeenti junniy nit wala juróomi junni par te ñëpp dañuy ñëw ngir dog am na beneen kuréel bu doon def social fan yee nga xam ne fanweeri junniy nit ak juróom jox na leen social te taxul ñu matal kon dafay mel ne sëñ Ahmadou lii muy def nii su fekkoon ne am na ay moroomam yoo xam ne kii comme ni mu nekk Gédé keneen a nga surra keneen a nga Daaru Xadim keneen a nga Kër Baylaat keneen a nga fële dafa dafa ama dafay amal solo parce que lii yaakaar naa lu mu bëri bari soo ko doon séddale li wër pencum Gédé mi nii wala sancaan yi nii kenn ku nekk li nga ciy am du bëri kon ñiy jëf. di ci def seen alal ak di def solidarité nañ xam ne lu mu gën a ñëw doyut nañ ko gën a dolli ba di ci boole ay yére di ci boole ay dàll di ci boole lépp ndax lu ñëw rek nit ñi danañ ko jariñoo kon initiative bu noobul la bu am solo boo xam ne euh, autorités yi war nañ koo saluer tàmbalee ko ci chef de village bi tàmbalee ko ci maire tàmbalee ko ci sous ba ci préfet ba ci gouverneur parce que lii jëfi état la état nag ONC yi ak association yi dañ koy wuutu ci li muy war a jëf toujours kon nag war nañu xam lii te saliyee ko bu baax a baax xam ne tamit sëriñ Ahmadou ak ñii nga xam ne ñooy ay partenaire am ñi ngi jëf ci gerte muy jëfa jëf ju am am solo en tout cas de ñun ñi nga xam ne ay bokk lañ tey xam lii nim nim nim yittee la dëkk bi xam nañ ne lii jëf ju noobul la ju am solo kon su ko defee eh, kàddu yooyu lañ bëggoon a ubbee dañuy tënk rek jox sëriñ Abdou Khadir Bousso bu defee bu yëkkati ay kaddu kaddu yi nga xam ne bu noppee sëriñ Ahmadou mi nga xam ne moom mooy initiateur bi moo fi nekkal euh, ONC Mariama di ko ànd ak ñoom jëf ji ay xaritam ak i bokkam ku mu am koo xam ne war na cee mën a jëf ak bokk yi ñu ñu ñëw jëf ci dana leeral mbir yi ni muy demee dëgg-dëgg su noppee kilifa yi fi nekk kenn yëkkati kaddu ngir tëj jotaay bi kon sëriñ Abdou Khadir bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki sénégalais yi fu ñu mën di nekk ci kaw suuf ca jot ci xew-xew bii ñu fas yéene ko jaarale ci Mbacke kajoor TV ñu ngi leen di nuyoo fii ci Touba Guédé Bousso di am mbégte bu baax ci mbégte mi nga xam ne ab jullit saa yu moroomam yëkkatee ndimbal jëme ko ci moom te fekk mu soxla ko da ciy bég lool te néega ni si daaw lu mel ni ñëwoon na fi jaare woon ci loxoy sëriñ Ahmadou Bousso mi di suñ doom jóge ci station bi ñuy wax Maria Mariama ANC bu nekk amerig di liggéeyal yàlla ci doomu aadama yi ñi tànn ñaar yu am solo ba ca njëkk ñi tànn sëxru Ramadan bi nga xam ne jullit ñëpp ñu ngi ci not seeni bakkan di ci góor góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ak ay ñaan képp koo xam ne tàllal nga ko loxo mu teg ci ab loxo ab doomu tàndarma ci sa sa loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na ci fay gu mat gu rëy waaye loolu benn la ba ca ñaareel mooy dëkk bi nga xam ne noonu ko suñu Abdou Lahad waxee pàkk suuf yi pàkk bi gën loon sëñ Touba ci kaw soof bu doon màkk ak dina mooy pàkk Touba pàkk Touba itam ña fa dëkk ñoo gënal sëñ Touba yeneen pàkk yi ndax li bëggoon lépp ca yàlla dogal am na toom tax dëkku fi ñi ko fi dëkkal ñoo ko ko mën a defal kon nag képp koo xam ne tàllal nga loxo ñi dëkkal sëñ Touba ci Touba gii kon sëñ Touba amel na nag fay dana it gën a leeral euh, payuk sëñ Tuubaa ci gaa yi ko daan liggéeyal sëriñ Modou Khary mooy waajuru sëñ bàcc di waajuru sëriñ Ahmadou Bousso mi nga xam ne moom ngeen teg mbir mi ci ay loxoom keroog bi ko sëriñ Touba di ñaanal moog sëriñ Baaxeer Bousso dafa la leen waxoon lu am solo ne su ngeen demee na ngeen sax ci jaamu yàlla tey moytu lépp lu suñu borom di tere daan su ngeen ko defee fu ngeen mën di nekk lépp lu ngeen soxla yàlla dana ko yan ay jaam ñu yenu ko ba fekk leen fa ngeen nekk ñu jox leen ko ci du ngeen sonn ci du ngeen sonle kon dafa mel ne loolu sëñ Tuubaa waxoon yéen dégg ngeen ko ca lii kat ñu soxla la ci dëkk bi ndax fii ci penc mi li ëpp ci kër yi ay daara la ñuy jàng alxuraan ak ñu koy jàngale ak ñu jàng xam-xam te yaakaar naa ne ñooñu mooy njaboot gi nga xam ne ñoo gën a sës ci suñu boroom ndax kenn nit bu fekkee ne jox nañ ko lu mat juróom fukki xale yoo xam ne lépp mooy seen responsabilité di leen dundal di leen faj dégg nga di def ci ñoom la war euh, rawatina di leen sol alxuraan kooku boo yëkkati woon benn kilo tàndarma wala benn kilo suukar jox ko ko dog jot mu séddale ko ay dongaam rek la la suñ borom mën a fay ci aw yiw kenn xamu nu toll. kon nag yéen ñi ngi leen di xamal ne seen jëf ji jëf jëf ngeen ko ci dëkk bu bu ko mat a jëf waaye teg ngeen ko ci loxo yi ñoo ko mat a joxaat ndax ay loxo yoo xam ne ñoom liñ li leen sëñ Tuubaa santoon mooy ñu jàng ba am xam-xam toog di ko jàngale ak di jaamu yàlla. jiitale ko jumaay Touba ji jiitale ko jumaa yi yi nga xam ne ñoo aju ci Touba ak li ci war li ci aju lépp mu teg ko ci seen loxo kon nag mm, askan la woo xam ne walla njaboot la boo xam ne bu jara jàppale la ñooñu nag ñoom itam jëluñ mbir mi teg ko ci seen njaboot ndax na li sëñ Touba waxoon ne njabootu lislaam mooy ak njabootam mm, sëñ Ahmadou Mbaye loolu loolu la firnde mooy njaboot gi nga xam ne ñoo dëkk Touba ak ñi rawat ñi dëkk Gede ñooña la fa fas yéene teg lii seen loxo ci yaakaar naa nañ ko doxaloon daaw de doxal nañ ko doxal bu rafet boo xam ne ànd naag ab silwise ànd naag honnête ànd naag euh, kenn ku ne jox nañ la sa gëdd ba soowa amu ci xëccu amu ci dara amu ci ñu joxe ko ci joxeen wu rafet daaw bare nit nit ñaa ngi koy séentu addi ko laaj alhamdulilah bi ko yàlla dogalee mu agsi muy jëf joo xam ne ñu ngi leen ci sant bu baax waaye sant gi leen ci sant nag li leen ci suñ borom gën a sant moo moo moom rek war na leen doy ndax suñ borom li mu wax ne képp koo xam ne yaa ngi dundale ci yoonu yàlla te dundal gi ngay dundal defoo ko ngir ñi lay sant wala ñuy def lépp da nga ko indiman nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukran foofu ngeen teg seen ndimbal li ngeen li ngeen di dimbali kon nag eh, ndimbal li agsi na teg ngeen ko ci loxo yi ñu wóor ñoo xam ne ñu am ngor lañ ñoo xam ne fa ngeen bëgg ñu dugaleen ko fa allah dana leen ko fa dugaleel ndimbal li nag ren ji macha àlla dolleeku na bu baax a baax ndax jënd na sëñ Ahmadu jënd na ci juróom-ñetti fukki saakuy ceeb yoo xam ne benn bu ne ñaar fukki kilo ak juróom lay def juróom juróom fukki saakuy ceeb yoo xam ne benn bu ne ñaar fukki kilo juróom lay def ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci biteelu diwlin boo xam ne benn bu ne yaa ngi def juróomi litre diwlin ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci poti chocolat ak juróom-ñaar fukki. gorosu suukar yoo xam ne benn bu ne juróomi kilo ngay def ak juróom-ñaar fukki kilo tàndarma ak juróom-ñaar paqueti juróom-ñaar fukki paqueti meew kon lii mooy li nga xam ne moom lañ jël ci ci ci ci li ngeen yónnee woon ñu fas yéene ko fas yéene leen ko joxeel ñu ngeen bëgg ñu joxal joxal leen ko maanaam quatre-vingts sacs euh, riz yoo xam ne vingt-cinq kilo la ak soixante-seize butéel diwlin boo xam ne benn bu ne cinq litres la soixante-douze pot chocolat 70 gorosu suukar yoo xam ne bu ne 5 kilos la 70 kilos tendrement 70 paquet meew lii mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi fas yéene joxe ci ndimbal li ngeen ko euh, yónnee kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax ci di leen ci gërëm di leen ñaanal suñu borom yokk yokk seeni fan yokk seen i xéewal waaye ñu ngi leen ci soññ it fu ngeen ko gën a mën a yaatal nga gën geen gën ko fay mën a yaatal ndax koo xam ne fi ngay root du fa jeex waaye fa ngay sotti it du fees saa yu ne war ngay góor góorlu ca lii la suñ borom mën a fay ci jëf ji néewaa na fay gu euh, jëf ji mel nii ñu fay la ci fay gu toll noona ndax wax naa leen ko fii saa ñu xëyee boo yoroon sab carnet balaa mi di jot da nga fi recensé lu ma fukki nit wala ñaar fukki nit ñoo xam ne dañuy yalwaan yoot ñii ay góor lañ yoo xam ne ñu ak njaboot ak leen di xaar tey buñ xëyut yalwaani seenu njaboot dañuy ñëw ca marché ba buñ yalwaani ba noppi tas ñoom ñu jox leen buñ amee ceeb jox leen buñ amee suukar jox leen léeg-léeg ay jigéen ñëw ñoo xam ne dañu wax ne sama sama boroom kër dafay nekkut bàyyi ma njaboot léeg-léeg nga gis koo xam ne ñu mel noonu ñoo bari ci dëkk bi lool comme ni ko suñ laat waxee yaakaar naa ne daaw bi ñu ko fi defee joxe nañ ba mu jeex lu mataat lim bu toll ne la lañ joxoon ñëwaat nañ ci liste bi suñu Ahmadu bi ngir bëgg bu ëllëgee bu fi ñëwee ñooñu nañ nañ leen jox loolu nag mooy firnde ne dëkk bi dëkk bu aaje dimbali la boo xam ne nii njaboot gi fi nekk d'abord ay sénégalais lañ. yoo xam ne ay citoyen lañ kooku ni ko suñ laat waxee gouvernement waroon na leen am ëmbal dara waaye nag ay jullit lañ waaye ay taalibe sëñ Touba yoo xam ne ñu ngi ko dëkkal fii ci Touba kon daal sëñ Ahmadou ñu ngi lay yóbbante ak cant ci association bi nga xam ne ñooy ay Mariama ANC nekk Amérique di leen ñaanal bu baax di leen jëfal waaye di leen soññ itam ci li jëm suñu kanam te di leen dalaleen seen xel ci ne lépp loo xam ne nii bëgg nañ ñi jaarale ko ci aw yoon ci ak leeral akuk maandu insha allah fas nañ ko yéene def ndax as gor di ab jullit di taalibe sëñ Touba yaakaar naa ne ñi nga xam ne dañ leen di jël ay ruu di leen ko dénk ñi leen koy téel ba suñ moroom ba àll ëllëg ñi teg ko ci loxoy sëñ Touba kooku boo yëkkatee kilo ceeb wala kilo tànn teg ko ci loxoom sa xel war naa yaakaar na ak sàmm ak ruu ba ba ba dem fa mu fa war a dem kaka suñ ñaka suñ borom euh, euh, sase ñooñe boo yëkkatee kilo euh, ceeb wala xandik diw jox leen ne ko joxal ma ko doomu aadama yi sa xel war na cee dal. ci la fa ngeen bëgg ñu jëme ko fi incha allah dana ko fi jëme kon daal lii rek lañ ci doon uh, wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy dégg wala bokk yi ñuy seetaan ñu ngi ñëpp di siyaare ñëpp di siyaare suñu kilifa bopp yi nga xam ne ñoo ne ci uh, dëkk bi waaye uh, wet gi nga xam ne mooy gere buso ñu fi sun borom féete ñu ñu ngi leen di siyaare ñoom ñëpp di leen jot seenu seenub siyaara ñoom kilifa yu tedd yi yéen waa association bi ñuy wax ne moom lañ tënkee Mariama ak loolu ca tegu di am mbégte bu baax di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne li ngeen def dafa dellu rek ci alquran ndax saarion ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ard uhiddat lil muttaqin lu mu ca teg allazina yunfiquuna fi sarraai waddarraai walkaadimina alqaysa wal aafina an innaas wallaahu yuhibbul muhsinin mag ñi déggoon sëriñ bi sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa daa wax ne lépp lu sëriñ Tuubaa njëkk a wax loolaay la donte gisagoo ko loolaay la am nga xam ne buñ ko masaa yu addiyee fas buñ ko ne addiyee fas ñëw na fi mu ne wu góor la wala jigéen nee na ba ba njëkkatu wu góor la rek buñ ko xoolee wu góor lay doon kon alxuraan ña moom it loolu Sëñ Tuubaa ci suñ borom la koy jëlee alxuraan buy classé lam njëkk a tudd mooy li ëpp doole allazina yunfiquuna fi sarra wa daraa la njëkk tudd doog caa teg yem ca teg lii ngeen def nag defe naa dellu na ci lool yi masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali habatin ambatat sab'a sanaabil fi kulli sunbulatin wallaahu yudaa'ifu liman yashaa' wallaahu waasi'un aliim beneen aaya ngoog muy tagg rek ñi nga xam ne def nañ jëf ju mel ni jii ngeen def yéen kon nag liñ man loolu rek xanaa di leen ñaanal rek suñ borom tëbb leen kàttan ba fi ngeen bëgg mu yegg mu yegg fa ñi daal sedd na xolub kilifa yi lool dalal na it seen xel ndax gannaaw ne ko sëñ Abdou Lahad waxe sëñ Abdul Xaadir jaaraat ci sëriñ bi dafa woote ci dëkk bi woo julli di julli ji wuy ko mu woo taalibe taalibe yi ko mu sàkku ñu nekkal ko fi nekkin woo xam ne mu dëppoog wi suñ borom bëgg ab jullit mel ni waaye nag lu bari bari seen loxo jotul seen gannaaw yéen ngeen dem def muhaajir ba suñ borom mm, baaxee leen ay xéewal seen xel de wëlbatikuwaat delluwaat ci dëkk bi nga xam ne moo ngeen cosaanoo defe naa ni jooju jëf moom boo ngeen di tagg seen loxo rek muy dem ci suñ borom kon nag bay boo xel dal ci bu baax képp koo xam ne yaa ngi ci wan ne ko sëñ ji li waxee ñu ngi la ciy soññ nga gën cee gën a dugal sa loxo ku ci bëkkutoon te gis ko it nga xam ne mi ngi nii ndax yàlla kat lu mu la bëgg bëgg a dimbali da ngay wut ndimbal la ma doog laa dimbali kon nag ndimbalul yàllaa ngi nii loo xam ne ndax kat àjjana moom yombut nañ koy dañ ko làmmiñ ñëw koy tudd lu bari rek waaye yombut de waaye nag kon ginnaaw noonu ma ko waxee xarduha samaawaatu wal ardu uhiddat lil muttaqin te taqwa dëgg dëgg dëgg yombut waaye lii moom mën na jaar am taqwa moom ndax eh, yiw yi moo bari moo tax suñu borom daa fonk jaam ñi moo tax kon nag yoon waa ngoog ñu ngi sant bu baax tey gërëm bu baax manoon nañoo doyloo ñii fi njëkk a jaar eh, suñ kilifa yu baax yi ñu kaddu yi na sax waaye nag jëf ju baax moo mel nii rek ñëpp ci ma am yéene nga xam ne comme doon ku ko mënoon tey yaa koy def waaye nag yéen ñi ko yàlla jagleel moo tax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen ko gën a man yàgg ko ànd ak suñu doom yi nga xam ne moom itam alhamdulilah li li li ngeen li ci loo xam teg na ko ci loxoy jaam yàlla noonu ko li waxee ndax transparence moo moo waral lii lépp mënoon na ko def te taxay na sax du ngeen am ci moom sikk waaye nag euh, xay euh, kumpa dafa loolu fi ne kumpa ngi tal new ñay loolu moo tax mu defee nii mu defee rek waaye bopp daaw ba man fekkee ma ko woon waaye ci dama ko seetaan ci euh, kii bi waaw waaye ci ma gis mu am transport leer nañ ba benn ba ren bi nag moom fekk naa ko témoin naa ci kon kon nag jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. aouzu billahi min aseytaan rajim wa inni uizuha bika wa zurriyataha min aseytaan rajim rabbi aouzu bika min hamasaati shayatin wa aouzu bika rabbi an yaxduruun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu sunu kilifa yi fi teew yëpp te di leen siyaare di leen jéggalu ci dagg gi ñu dagg seen yitte waaye ñu xam ne it lii seen yitte rek la bokk lépp loo xam ne lu jëm ci liggéeyal sunu borom jëm ci liggéeyal sëriñ Touba mooy seen yitte ci ngeen xëy ci ngeen gont waaye ñi ngi sant bu baax nag ci waxtu yi ngeen ñi may ci seen temps xam nañ ne amoo leen jot rawatina ci jamono yi ñu nekk di yëkkati kàddu rek ngir leeral lu tuuti ci liggéey bi li ko tax a jóg ginnaaw bu ñu leen santee ci kàddu yi rafet yi nga xam ne jib na fi yëpp di ñaan ñu bokk ci daje ngërëmul sëriñ bi lii daal yéene la joo xam ne ay mbokki taalibe yu bokk yaakaar sëriñ tubaa te yàlla boole leen boole seeni xol boole seeni ru boole seeni jëmm ñooy ay xarit di ay wëllëre di mbokk di taalibe di lépp yàlla boole noog ñoom ñu am yéene liggéeyal sëriñ tubaa ci dëkkam bi waaye jaarale ko ci jaami yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te néew doole mm, biñ ci waxtaanee ñu taxawal ko wane ne. liggéey bi lenn lum ci mën a doon lu ñuy tàmbali la te fañ yéene àgg fa ñu ñaan yàlla àgg leen fa waaye lii ab tàmbali la boo xam ne dañ euh, ciy feeñal yéene ji waaye doonagul dëgg-dëgg li ñu tax a jóg am nañu yéene mu doon liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne ñëpp dinañ ci gën a mën a gis seen bopp euh, ndax ni mu tàmbalee nii loo xam ne la ñi ko seq kenn ku nekk ci ñoom yéeneem kawe na lii fopp kenn ku nekk ci ñoom bu sañoon weer wu jot dana yëkkati lim bu am solo jagleel ko ñi nga xam ne dañoo dëkk Touba te doon ay néew doole yéene ji àgg na ci bëgg nañu àgg ba bëgg nañu mu dem ba àgg ci di xëccal ndox sancaan yi nga xam ne dañuy door a toxu ci dëkk bi te amuñu ay ndox barab yi nga xam ne day lëndëm tañ man caa jàpp jàppin woo xam ne du seq ak dara ci yi nga xam ne état moo ko war a def wala yi nga xam ne yeneen kuréel yu mag yi ci dëkk bi ñu ngi koy def yu bépp yéene boo xam ne buñ am la ci taxawu dëkk bi rek euh, mbooloo mi am na yéene ju tool noonu daara yi nag ren bokk na ci li nga xam ne ak ak lu yees la ci liggéey bi ginnaaw bi ñu ko tàmbalee daaw ren dañoo yëg ne liggéey bi am na solo ci fépp waaye rawatina daara alxuraan yi nga xam ne. Euh, ñoom amul benn sikk ci ne ñoo nekk ci dëgg-dëgg liggéeyu sëriñ bi te léeg ñuy doon ñoo xam ne danañu néew doole ci ni daara ji doxe moo tax ren bokk na ci niñ tàmbalee mooy daal di jël fukki daara yoo xam ne dañ leen di daal di tàmbalee ci liggéey bi waaye lim boobu yi dañu fas yéene saa bu ñëwee mu yokk incha allahu taala euh, ak juróom ñaar fukki famille yoo xam ne euh, kër gu nekk dinañu fexe dara dugg fa ñu feeñale ko yéene ji te ñaan yàlla mu doon loo xam ne dina yokk ba niñ ko bëggee ñu man ko ni defee li ci ëpp solo daal mooy eh, ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo ànd ngir liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bi jaarale ko ci ñi nga xam ne ñëw nañ wuy si wooteb sëriñ bi ci dëkk bi te yàlla dogal seen doole bariwut ñu bëgg a jaar ci ñoom liggéeyal sëriñ bi ci ñoom loolu mooy li dëgg-dëgg li waral mbir mi doon loo xam ne it sunu ay eh, man-mani bopp sunuy li nga xam ne suñu borom dogal nañ ñi ko séq kenn ku nekk la muy liggéey ba mu lew ko ca la yëkkati lam am joxe ko maanaam loo xam ne lay taali bi ñoo ko séq kenn ko ne def lam man waaye nekkul loo xam ne financement état la wala financement wu ay ONC wala demee noonu loo xam ne dañ ñi ko séq ñoo taxawal mm, jëmmi kuréel bi fës ci yéene ñoom ci seen bopp ci seenu ñaq di ci liggéey sëriñ bi waaye nag teewut ginnaaw ci dëkk bañ nekk dëkk la boo xam ne ci luwaa lay dox fexe nañ ba lépp loo xam ne moo war a tax mu nekk lu walaabal def nañ ko ba ci ay këyit ba mu nekk loo xam ne lu walaabal nga xam ne tey somm bu buñ mënoon a amit danañ ko mën a dugal te duñ ci am jafe-jafe loolu jaaral nañ ko ci yoon woowu kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal leen te ñaanal ñu ba lépp luñ ci yéene suñu borom may ñu kàttan ak ñu man koo def ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ñu di ko def salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi fiin ak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 fawsi bi ma si tuusi duniyaaka yàllaaw antaaday murasi arjo bi ramati ala ulaaqiya dur